أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يدرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فإذا موت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما <coughs> أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم واجعل لسان صدقا في الآخرين في الآخرين ci mbindu xas yi genre mel noonu dañuy bind alif bi diggante lam alif bi maanaam hamza bi dañ koy bind diggante lam alif bi am duñ ko def ah ce qui fait que fil aaxirin alors que bu doon tiraawa ma dina fil aaxirin voilà donc xala fil aaxirin voilà am nañu taxaw tuuti ñoom xalaf voilà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 عليه رحمة ورضوان باري جسن جتا بي ويس غسن ننتي باب النزول بين عرفه وجمع بين عرفه وجمع بنت بيغا خامن موي واختي واتو غواتي دي ني واتي ديغنت عرفه اك جمع موم موي مزدلفه ني غسن حديث سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamne mom la joge won ci arafa dafa jeng jeme ci walu euh, manam xuri ci euh euh rokuy wala mbeddi euh, doci mu daldi fat adom daldi japp euh, naka nonu gisoon nañ hadith sirna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu mune ne bi sallallahu alayhi wa sallam nimu nimu def rek non la defon manam mom mu def li yonent bi defon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune mom moy moy annahu yamurru bi shabi alladhi akhadhahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fayadkhulu fayantafidhu wa yatawadda wa la yusalli hatta yusalli bi jama' dafa romb ca xur yooyu mbedd euh, doj yooyu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon moom it mu daal di dugg daal di euh, faj aajam tàncu daal di nag daal di jàpp daal te du julliwul mbete xanaa mu daal di yegg fële ca jamono te moom mooy Musdalifa naka noonu gisaatoon nañ ci xadiis Seydina Usaama bi radiyallahu taala anhu ci anam goo xamante ne moom moo gënoon gudd moom la gënoon a yaatal naka noonu gisoon nañu baabu amri nabii sallallahu alayhi wa sallam bi sakinati inda al ifaadati wa ishaaratihi ilayhim bi sawti bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne yenente bi sallallahu alayhi mu digal la nit ñi daal di dal bi nga xamante ne moom la ñuy jógee eh, fi nga xam ne moom mooy eh, moom moom la ñuy bàbbeekoo fa li nga xam ne moom mooy eh, arafa ak junj gi nga xamante ne moom la leen junj doon junj ak loxoom Ah, maanaam ak eh, ban ak yatam mu daal di wax ne ñu eh, ñu gisoon ci xadis sayyidina ibn abbas bi radiallahu taala anhuma bi muy nettali ne yenent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne moom la jóge woon maanaam ñoom ci lañ jóge woon bisub arafa maanaam ñu daal di génn maanaam bàbbee eh, arafa maanaam ñu daal di gis nag ay nit ki eh, ci ginnaawam maanaam mu daal di yént bi saa sax mu ne fa samia nabi sallallahu alayhi wa sallam waraahu zajran shadidan wa tarban wa sawtan lil ibil fa ashaara bi sawtihi ilayhim wa qaal ayuha nnaas alaykum bi sakina fa inna al birra laysa bil idaa maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dégg kon ak ak jay jajj ju tar maanaam ñu dàq gëléem yi ak ay dóor naka noonu mu dégg kàddu yi gëlëm yi maanaam ñuy yëkkati ku ca kaw mu daal di junj loxoom maanaam ak bant bi maanaam yar yi nga moom la yoroon daal di koy junj nit ñi daal di leen eh yéen nit ñi maa ngi leen di dénk dal ndax ak mbaax de nekkul ci gaawtu gaaw gaawtu buum ak maanaam euh, naka noonu comme ni ñu ko xam ne maanaam alajala maanaam yàkkamti comme ni ko wolof yi di waxee yàkkamti yàqule maanaam loolu tamit dafa daal di am. Euh, waa doon donte maanaam loolu yëpp dafa am ay tekkantal yoo xamante ne fii du palaasam waaye euh, yàkkamti yàqule maanaam dafa am loo xamante ne ci lañ koy wax maanaam ci lañ ko mën a wax am yoo xamante ne mënuñu ko caa wax comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee euh, gisoon nañu imaam al Buxaari rahimahullahu taala baat bi mu indi maanaam aw ba maanaam voilà أوضعوه أو مانم أسرعوه خلالكم مانم من التخلل بوي بينكم كم مجند وفجرنا خلالهما نهارا مانم بوي بينكما كم نحن نقول إن كل هذا لو أنت سنجت أبي ويس جسم من جميل باب الجامع بين الصلاة إن بيل مصدرفة بنت بيني خم نم موي لا رجل تجلي جني تجلي جنياري جلي تي مصدرفة موي تمسك جيه jaadi gisoon ci xadis sayidna usaamata radiallahu taala anhu bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yegsee musdalifa mu ne fa tawadda fa asbaxa summa uqiimati salaatu fa salla bilmagribi summa anaaxa kullu insaanin baayirahu summa anaaxa kullu insaanin baayirahu fi manzile summa uqiimati salaatu fa salla walam yusalli baynahuma mu ne nit ñi bi mu ñëwee musdalifa moom dafa daal di jàpp daal di matal njàppale daal di topp nag ñu daal di taxawal julli mu daal di julli timis topp nag nit ñi kenn ku ci nekk dem ci sa wàccuwaay nga gooral fa sa gëléem euh, topp ñu daal di taxawalaatal julli maanaam mooy te gée gée mu daal di julli <coughs> te julliwul ci seen diggante loolu sax mooy wax ju mujj jooju moom mooy wax ji nga xam ne moom moo ñëw ci bunt bi ci teg bi ñu gisoon mooy baabu man jamaa baynahuma walam yatatawwa buntu bi nga xamantene mom moy wax ci walu di ko dajale digënté julli manam julli timis ak julli gee te te te wala mu tatawwaate coobarewul ci ay nafila ñu gisoon ci xadis saydna abdullah ibn umar radiyallahu taala anhuma mu ne jamaa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna al-maghrib wa al-isha' bi jam'in kullu waxidatin minhuma bi iqamatin lam yusabbih baynahuma wala ala ithri kulli waxidatin minhuma mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dajale timis ak gee ci jamaa mooy musdalifa benn bu ci nekk ci ñoom ñaar ñii dafa am liqaam waaye nag julliwul seen diggante naka noonu ci jeexitalu benn bu ci nekk tamit julliwu ca ñu gisoon tamit xadis saydna abu ayub al ansaari radiallahu anhu mu ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jamaa fi xajjati alwadaa almagriba wal ishaa al musdalifa mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dajalee diggante timis ak gee ci xajjatul wadaa te musdalifa léegi nag ñu war a gis baabu man azana wa aqaama li kulli waxidatin minhuma baabu wuntu man ki nga xamante ne azana dafay noddu wa aqaama mu taxawal li kulli waxidatin ñeel képp bépp képp kenn ma ci ñoom ñaar maanaam moom mooy ci tisbaar maanaam mooy ci timis ak gee te mu musdalifa maanaam naka noonu tamit li nga xamante ne moom lay wax ni moom mooy kii nodd kooku moom mooy liqaam te loolu gisoon nañ ko maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man azdana fal ki nga xamante ne moom mooy nodd kooku na liqaam maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën waaye nekkul loo xamante ne lu ràññeeku la te lu war lu farata la lu war la naka noonu tamit ki loolu moo ne mu ne kon ki nga xamante ne moom mooy kii kii war a nodd mooy ki nga xam ne moom mooy ki imam bi désigné maanaam ki imam bi wax ne na nodd wala boog mu nekk noddukat bu ñu xam ci mbooloo ma nga xamante ne moom mooy mbooloo moomu di jógee Arafat di dem ca Musdalifa ndax imam bi moom mooy ànd ak nit ñu daal di dem Musdalifa kenn ci bu bu jant bi xësee ba je ba sox maanaam bu jant bi soowee ba guddi gi tàmbalee dugg rek ñoom dañuy daal di bàbbee fi nga xamante ne moom mooy Arafat ñu bu ko defee ñu daal di dem Musdalifa loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku moom mooy sunna donte képp koo xamante ne maanaam ah, am na benn wàll ci guddi gi lu bu la fekkee Musdalifa rek baax na waaye nag wàll googu na nekk wàll gi nga xam ne moom mooy wàll gu mujj gi comme ni nga xam ne noonu lañ koy leerala insha allahu taala naka noonu kon ah, ah, léegi nag bi beneen bi ci des moom mooy masala boobu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaawu xanafiyeeg shaafiyeeg xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne képp koo xam maanaam julli boobu nga xamante ne moom la ñuy dajale maanaam moom la ñuy def dañuy noddu eh, ñaari maanaam noddu maanaam julli bu jot dañ koy maanaam dañ koy noddal maanaam kon dañuy noddu julli timis ñu nodd maanaam dañuy noddu li xam julli déedéet astafurlah benn nodd rek noddal maanaam dañuy noddu daal di liqaam julli timis daal di liqaamat julli gee mm-hmm. ak ba pare naw naka noonu bu fekkee nte ne noonu la ci Musdalifa dañ koy wàññi maanaam dañ koy wàññi ba mu des ci ñi dëkk Musdalifa ci boppam ñooñu moom duñu duñu duñu ko wàññi ci waxu euh, ñenn ci borom xam-xam rahmatullah alayhim comme fuqaha shafii rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, fuqaha u maliki rahmatullah ñoom ñoo wuute ci masala bi ndax ñoom dañu ne dañuy wàññi dañuy dañuy dañuy noddu daal di liqaam daal di julli timis na après ñu noddaat daal di daal di julli gee maanaam moom mooy ne julli ci jot gu julli gu nekk dafay am nodd boppam te loolu nag moom mooy li nga xam ne moom mooy liy war maanaam li ràññeeku bokk mooy sunna ah ci lépp loo xamante ne rek dañ koy nodd maanaam dañ koy jullee maanaam lépp bépp julli boo xam ne dañ koy boole rek ñoom noonu lañ koy gisee maanaam bu boobaa dañuy daal di nodd daal di liqaam daal di koy jull daal di julli julli bu njëkk bi noddaat liqaamaat daal di julliwaat ñaareelu julli bi waaye li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhur amaan na moom mooy li gën a wér insha allahu taala moo tax imaam al buxaari rahimahullahu taala daal di indi nii buntu bi te comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ koy gisee ci xadis yi nga xam ne moom mooy ñëw insha allahu taala te moom mooy ne benn nodd rek la ñuy nodd waaye nag danañ ko liqaamal maanaam julli bu jot la ñuy liqaamal liqaamu boppam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li xaddasanaa amru bnu xaalid te moom mooy ibnu farrux ibnu said ibnu abdurahman ibnu waaqid attamimi rahimahullahu taala abulxasan alxanzali attamimi maanaam moom ci fukkeelu génération bi la bokk génnaat na 229e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk waa misra comme niñ ko gisee mu ne qaala mbokk ci amaa afraadul buxaari rahimahullah mu ne qaala xaddasanaa zuhayrun te moom mooy ibnu muawiya ibnu xadij maanaam muy abu xaysama al jawfi rahimahullahu taala di wa kufa mom di juróom-ñaareelu génération bi la bok moy juróom-ñaareelu tabaqa bi gëna àdduna centième ane génn àdduna cent soixante-treizième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam mun qala hadathana abu ishaqa tuma as-Sabi'i rahimahullahu taala al du abu al-hamadani al-kufi rahimahullah gën a siiwee ci abu ishaqa as-Sabi'i di amr ibn abdullah ibn ubayd Euh, moom euh, rahimahullahu taala comme niñ ko gisoon téeméeri at la dund maanaam vingt neuvième année ba cent vingt neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne noo qaala sami'tu abdurra abdurrahman ibnu zay ibnu yazid te mooy ibnu qays abdurrahman abdurrahman ibnu yazid ibnu qays an-Nakha'i rahimahullahu taala bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna maam nekk waa Kuufa tamit rahimahullah جن أدنى تسعة وثلاثين من أنا جناو كدا ينتمي صلى الله عليه وسلم يقول منه حج أدنى عبد الله تمامي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنا موقوفة أنا من يوم بيجوا خي عبد الله هرك ابن مسعود لني وح مم أبو عبد الرحمن وسيدنا عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فأتينا نداري دكينك المزدلفة فوفق خمنتنا مم المزدلفة te comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon maanaam musdalifa maanaam mi ngi jóge ci az-zulfa bi tekki ak jege comme ni nga xam ne maa na'buduhum walladhina ittakhadhu min duni llahi awliyaa maa na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa maanaam ñoom loolu la ñuy wax maanaam euh, dañuy wax ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jaamu ñeneen Euh, ñoom maam ñoo ñuy jaamu ñeneen ñu dul yàlla maanaam def leen ay parando ñooñu nag dañ naan ñun de jaamu wuñu leen lu dul ne dañoo bëgg ñu jegeel ñu buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ngir ne musdalifa dañ fay nekk foo xam bërëb la boo xamante ne dañ fay sàkkoog jegeñ lu borom bi ah, subhaanahu wa taala te maanaam moom dañ wala bokk mu gën a jege maanaam mu tax maanaam ñu dugg ci xaram bi comme ni nga xamante ne euh, te baatu fa boobu maanaam mooy euh, euh, maanaam moom mooy verbe mooy azlafa maanaam comme ni nga xam ne wa uzlifatil jannatu lil muttaqin maanaam jegeñal nañ àjjanay ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla maanaam kon loolu moom mooy al maanaam al qurba maanaam kon bu boobaa dafay daal di nekk loo xam ne dafa jóge ci at taqarrubu jegeñlu maanaam kon bu boobaa lépp foofu bërëb la boo xam ne nit ki bu fa duggee daa war a xam ne fii kat dama fee war a jegeñ lu sama borom subhaanahu wa taala lépp loo xamante ne moom moom ma war a yokk sama digganteeg sama borom subhaanahu wa taala ma nekk ca te bañ a nekk ci leneen loolu moom moo tax maanaam ñu fay dem maam di ko def ci guddi gi ngir ne guddi maanaam mooy place bi nga xamante ne moom mooy place bi nit ki di gën di mën a wéetoo ak boroom subhaanahu wa taala maanaam ah, nga xamante ne bu boobaa ngir ne bëccëg gi maanaam coow li mën naa bari wala bëccëg gi lenn lu ci nekk mais guddi gi maanaam nga jël benn jamono joo xamante ne da nga wéet ak sa borom subhaanahu wa taala loolu moom mooy kon li nga xamante ne maanaam moom mooy di euh, ci wàllu Muzdalifa am ah, donte nag man maanaam day mën na tekki tamit maanaam mën na jóge tamit ci euh, euh, comme na azlafa bi tekki maanaam dajale wa azlaf naa mal aaxarin maanaam mooy dajale mooy daja ngir nit ñi daje gi nga xamante ne moom la ñuy daje ca Musdalifa maanaam kon loolu tamit day daal di mën a nekk loolu waaye eh, ñaar yëpp mën naa nekk man ah, ah, ngir ne jaamu yàlla yi nga xamante ne ñoo yi gën a màgg mënef na koo def yow kese waaye mënef na koo def ci mbooloo itam comme ni nga tamit noonu lañ koy gisee ci maanaam ci Musdalifa ñu gis ay jooni nit wala ay ay million nit manam taxawandoo di jaamu borom subhanahu wa taala di ñi di julli ñi di euh, di zikr manam comme ni nga xamne ne fazkurullaha inda al mashar al haram comme ni ko alquran waxe manam ngeen di fàttaliku yalla di tuddu yalla di fàttaliku yalla manam nek di sabbal di wax la ilaha illallah di ñaan di sakko jegeñ lu borom subhanahu wa taala ba fajar di jot lolu euh, dafa nek loo xamantene ne euh, lu lu magla loo xamante ne dañ koy def yow kese waaye tamit dangay gis ne yow rek wéetoo ci di ko def waaye am na ñeneen ñu nekk sa wet ñu koy def tey doo leen ko defandoo maanaam moom mooy ne àdduna bi yépp comme ni mu nekkee nga xam ne malaaka yi fenn fu fu nekk la ñu nekk di jaamu yàlla nit ñu baax ñu fépp fenn lañ nekk ci àdduna bi di jaamu yàlla waaye di jaamoondoo yàlla te léeg-léeg dañ koy def kenn ku ci nekk da ngay nekk fi nga nekk di ko def donte nag am na yoo xam ne ñépp a koy defandoo borom bi subhaanahu wa taala da leen di wax nañ ko defandoo comme julli juróom yi comme comme weeru koor gi comme euh, te weeru koor sax loolu tamit maanaam nit kiy woor itam moom kese mooy woor maanaam du wooraale keneen ki te duñu taxaw nañ woorandoo maanaam duñu woorandoo donte ñoom ñépp ñoo koy defandoo ngir ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko tegee noonu loolu nag image la boo xamante ne dafay feeñ tamit ci Musdalifa ànd ak ne ñëpp dañuy nuroo comme ni nga xamante ne maanaam ki am ak ki ñàkk ñëpp bokk li nga xamante ne moom la ñuy euh, doxale kon moom dafa wàccoon nee na ba njëgsee ca Musdalifa xëy na jamono ji nga xamante ne al azana nodd bi maanaam ñëw na bi la atama ci maanaam jeexitalu géegi maanaam waxtu géegi maanaam ci dafa maanaam al atama mooy lu guddee lool maanaam lu guddee kon foofu mooy gée baat la ci turu maanaam mooy ci waxtu yi nga xamante ne moom al mooy waxtu yi nga xamante ne dafa dafay dafa guddi kon loolu awwala boo xariban bu jege min zalika ci loolu daanaka jege na maanaam jege na xaaju guddi kon ñoom foofu maanaam euh, kon foofu la ñu nodde ñu daal di julli fa amara mu digal rajulan benn waay fa azzana mu daal di nodd maanaam mu digal kenn mu ne nag kenn nodd wa aqaamate mu taxawal summa topp nag salla mu daal di julli al maghriba Euh, timis wasallaamu daal di julli baadaha ginnaaw loolu tamit rakkatay ni ñaari rakka suma topp nag daa mu daal di woote bi ashaihi bi ashaihi maanaam mu daal di laaj bi ashaihi ci reeram fata asha mu daal di reer suma topp amara mu daal di digal manam li ma gis nag mooy ne fa azdana dafa nodd wa aqaamate dafa taxaw manam li motax manam maanaam hadith abdullah bin masud bi radiyallahu anhu moom fuqaha maliki yi rahmatullah alayhi di sukkandikoo ko gis nii mu ne qaala nee na amrun maanaam amrun moom wax moy ibn khalid bi nga xamantene moy serignu mamal bukhari rahimahullahu taala mu ne laa aalamu xawma ashakku sikki gi illa lulul min zuhair ne ci zuhair la jóge manam mom moy nek di sikki sàkk ne yakar na ne dafa ne dafa noddu ba pare taxawalat manam wóoru ko ne dañu noddat ah daan ci ñëwaat insha allahu taala mu ne suma topp nag salla mu julli al isha gee rakka ni ñaari rakka maanaam mooy ni kon mën nañoo naafile ci diggante timis gi ak gee gi dégg nga fa lamma ba nga xamante ne talaa moom la fenkee nag alfajaru fajar gi qaala mu ne inna nabiya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na laa yusalli doon julli haadihi saa maanaam sidna abdullah ibn mas'ud day wax de radiyallahu maanaam ne Eh, moom de moo doon moom bi mu defee loolu ba pare daan ne kat ah, yonent bi de salallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na laa salli doonu julli haadihi saata bii la waxtu illa lu dul haadihi salaata julli gi maanaam lii tamit mooy mootabat maanaam mooy sukkandiku waayu xanafi yi rahmatullah ñu jàpp ne boole gi nga xamante ne moom la ñuy boole julli yi timis maanaam timis ak gée ca hmm. Musdalifa rek la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ko te loolu moom comme niñ ko gise woon ci suñ jotaay bi weesu mais xadis euh, yi na abdullah ibn mas'ud bi radiallahu taala anhu dàqul yeneen xadis yu bëri yi nga xamante ne saxal nañu boo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boole gi mu boole diggante tisbaar ak tàkkusaan ak diggante timis ak gée fudul arafa te du Musdalifa hmm. te loolu kon de tegtale maanaam euh, Euh, loolu maanaam day euh, day day day tegtale ne loolu mën naa nekk te naka noonu moom bi mu nee julli gii defewu ko lu dul fii moom say wax jooju dafa desee leer maanaam ci mafhum lañ ko jëlee lu tax ndax ne xam nañu ne maanaam ci man mantuq la boo xamante ne am na mafhum bu ko bu ko bu ko jañ bu ko jañ voilà maanaam mooy lan mooy ne dañ naan ah wax dëgg yàlla arafat tamit noonu la demee mais waxul arafat moom tuddul arafat ci wax ji maanaam loolu rek bu boobaa day daal di tax maanaam ñoom bu boobaa xanafi yi li ñuy wax rek mooy bon dañuy jàpp ne arafat tamit ci la bokk parce que lu ñu xam la mais ba tey da gis ne euh, le fait que tuddaale wu ko rek loolu day daal di jañ li nga xamante ne moom mooy euh, mbir moomu ànd ak ne xadis yi nettali ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam def na ko loolu bëri nañu walillahi alhamdu wal minna mu daal di wax ne la mu ne kon nag bi julli rek illa hadi salaat loolu julli gi fi haadal makaani ci bis bi min haadal yow mi ci maam mi ci bërëb bi min yow mi ci bis bi qaala abdullah maam mi seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu daan huma ñaar ñii salaataani ñaari julli yoo xam ne tuxawalaani dañ leen di toxal an waqtihima ci seen waxtu maanaam muy lan mu ne salaatul maghribi jullik timis baadama ginnaaw bi nga xam ne yaati dikk naan naasu nit ñi al musdalifa musdalifa maanaam musdalifa bu ñu fa jullee maanaam ñoom moom li mu gis mooy ne julli timis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daa iman danga daan julli bu jant bi soowee rek ci saa si ba nga xamante ne léeg dañ daan pare julli sax nit ki mën na sànni xeet gis fu mu sàlli ngir ne day leer ba tey maanaam bu timis day jot ñu julli ko ba mu bu ñu génn mu continuer leer waaye euh, mu mu ne waaye nag loolu moom mooy julli timis kon yonent bi saasam daa iman loolu la ko daan jullee maanaam daanu ko yéexee mukk ba mu lëndëm mais bis boobu kese la ko mës julli mu tax maanaam toxal ko ba maanaam bis boobu kese la ko mës a julli fekk euh, dafa ko yóbbu ba gee xattaa gee bi sax daf koo tox daf ko yóbbu ba mu gën a lëndëm maanaam loolu muy benn wal fajur ak fajar xii na bi nga xamante ne yab zuxu ci la fenkee al fajuru fajar gi maanaam bi fajar gi xar rek maanaam wala yab suxu ci lay xare alxuraan fajaru fajar bi xaala maanaam te loolu mu ne waxtu woowu mu loon moo tax mu wax ko loolu daañ ko gis insha allah maanaam mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa tamit daanul def noonu fajar fajar li mu daan def mooy bu julli bu bu fajar gi xare day julli ñaari rakka këram néegam d'abord après mu tëdd xaar comme euh, bu pare doog a génn voilà doog a génn dugg ci jàkka ji maanaam ñuy doog a julli maanaam mooy daanul julli fajar juste parce que fajar gi xar na rek mu julli ko déedéet yonent bi saa sam daanul def loolu maanaam loolu lay leeral fii mais yonent bi saa sam daanul def loolu lim mu def mooy danaa xaar ba jamono jële ñëw mu doog ko def maanaam kon loolu tamit day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon eh, maanaam moom lay wax fii maanaam ne julli gii tamit musdali eh, musdalifa ñun bu fajar fajar gi dafay xar rek ñu nit ñi sax ñu ngi sikki yi ñii naan jot na ñii naan jotul mu julli waaw maanaam daa julli ñaar rakkaay rek ne gaa yi jóg leen gaa yi jóg ñu ñu julli fajar maanaam loolu day mu ne ñaari waxtu yooyu nag ñaari façon julli yi ma la nettali maanaam mooy timis gi ak gée gi ni mu ko toxalee noonu nga xam ne timis daka daan teel a julli bii baa mu bàyyi ko ba ci gée bi xataa gée bi sax da koo da koo julli daanaka ci ci ci waxtu muxtaar bi fi muy jeexe ah muy mooy atama lëndëm këris timis gi ah, kii suba gi fajar gi mu julli ko ci jamono ji muy doog a xar maa mu julli ñaar rakkaa rek teg ci ñaari rakkaay suba yi loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxalee noonu maam loolu lay wax ni ne dañ dafa toxal julli yi waxtu yi moom lay moom lay wax noonu ah, kon ah, maanaam fuqaaw maaliki yi rahmatullahi alayhim ñoom ci xadis bi lañ sukkandikoo ne dañuy nodd ñaari yoon maanaam dangay gis ne te loolu comme niñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, comme ku mel ne ak taxaawi rahimahullah ak ñu mel ne ñoom ñoom dañuy yéemu lu tax imaamu Maalik di sukkandikoo ci wax yu mel ni maanaam xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ak lii ànd ak ne benn xadis bi maanaam moom moom imaamu Maalik solowul xadis bi maanaam mooy soloo na ko gaa parce que xam na ko mais indiwu ko ci Muwatta ñaareel bi ci des moom mooy waa Madina musuñu doxale nii maanaam moom mu dem sukkandikoo ci lii ànd ak xadis waa Madina yi dañoo wuuteeg loolu waaw maa xaafis ibn Abdul Bar nag ne man it dama yéemu lu tax xanafiye yi ànd ak ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu moo ngi nettali lii ñoom jëfewuñ ko ba pare dem jëfe ji xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy waa Madina yi waaye booba li ñu tontu bi moom yomb na moom mooy ne xadiis waa Madina yi ñoo gën a dëgër ñoo gën a leer te moom maanaam ñoo gën a wóor amul say sikki sàkk yu ñu ne voilà wallahu aalam ah, ah mu ne mu ne ba pare nag mu ne summa sum qaala mu ne raaytu damaa gis annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yafaluhu mu def ko maanaam yonent bi li mu def mooy lan sallallahu alayhi wasallam ñaari julli yi heure boobu la leen julli moom loolu la garanté waaye xadis waaye Zuhayr moom dafa sikki sàkka ne wóoru ko wóoru ko ndax nodd nañ maanaam kon ba tey da gis gis ne sukkandiku waaye woowu day desee dëgg la dégg nga alam na eh, benn kon nag eh, eh, imam xadis xadis bi imam Buxaari rahimahullah dina ko indiwaat xadis numéro 1682 ak 1683 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1289 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1934 imam Nasaa'i indi na ko xadis numéro 608 3027 ak 3038 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 3637 3680

wa yuqaddimu ida gaaba alqamar ah, maanaam bu buntu man ki nga xamante ne qaddama dafa jiital daafata ñi nga xam ne mooy ñi néew doola ci ahlihi ci ñoñam bi lay liñ ci guddi gi fa yaqifuuna bu ko defee ñu taxaw bil musdalifati ca musdalifa wa yad'uuna ñu ñaan wa yuqaddimu te ñu jiitu maanaam mu jiital leen ida gaaba bu ah, Euh, fenk maanaam bu fenk bu fenkee boobu bu sowee ida xaaba bu sowee alxabaru weer wi maanaam loolu mooy lan loolu moom mooy euh, maanaam ñi nga xamante ne mooy taxaw musdalifa atte dafa am atte bu ci am mooy taxaw musdalifa borom xam-xam yi rahmatullah ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dañ kaa yoonal ci wàllu aj maanaam mooy képp koo xamante ne da ngay dem aji guddi aj guddi gi ngi jugee arafa maam nga dem Muzdalifa dafa nek lo xam te ne dafa ràññeeku ci yow te dafa nek lo xam so beugé doxale sa acc mu baax mu gën faaw non ngay doxale légui nak ñu wuté ndax warna na waaw wala det ndax dañ koy tourul deret waaw wala det lool tamit borox ko xamni wuté nañ ci rahmatullah alayhi ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafii ak Hanabila rahmatullah alayhi hatta taxal nañ ci imam Shafii ak ñenn ci seen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañoo sax ne maanaam farata la maanaam te ko maanaam wala ponk la ba xamante ne boo ko deful sa aj day yàqu waaye lii dëgër ci fuqahaa Shaafi'i Hanaabila rahmatullah mooy ne ah mbir mi nag yëggut foofu maanaam euh, dëgg la ne maanaam euh, boo boo ko deful te tey ko maanaam amoo ngànt nga tey ko parce que dañoo teqale ki am ngànt ak ki amul ngànt ki am ngànt moom am na àtteem mooy mooy bu ko defut dara du ko ci fekk waaye ci amul ngànt moom faaw da koy tuural deret mooy waajub la maanaam te ki am ngant moom mooy ñi nga xamante ne masalan ñoom mooy comme ñii muy wax nga xamante ne dañ ne ah ñoo yéen moom dangeen di teel a dem teel leen a dem wala ñi nga xamante ne mooy ñun maam ah, comme jigéen joo xamante ne masalan dafa gis mbërëg maanaam wala day yaakaar ne day dina waaj gis mbërëg maanaam wóorul bu toogee bu demee Musdalifa ba xëy suba wóorul te mu gis mbërëgam mu daal di gaaw jóge Arafat daal di dem Màkka dem def ay tawaaful ifaada parce que xam nga tawaaful ifaada boobu moom ruknu la ponk la te il faut nga def ko mais ginnaaw Arafat nga koy def maanaam mu daal di yàkkamti daal di xaaral ma dem defi ji ko wala boog koo xamante ne dafa feebar ci diggante bi maanaam mënta dem wala book koo xamante ne maanaam mu am ay ngànt daal yoo xamante ne yu ko téye la yoo xamante ne wala boog mu jugee maanaam ci yoonu Màkka maanaam mu war a jóge yoonu màkk ñëw mus ñëw arafat wala ba mu yéex yéex a si arafat maanaam yéeg si arafat masalan guddi gi ah, ah ba guddi gi di waate jeex nga xam te ne ci lay doog a yegg see arafat te faw mu dem arafat maanaam bu ko defee moom kon bu boobaa bu dee arafat su fa nekkee après du mën a yegg si mus musdalifa kooku day noonu lay daal di def maanaam ah, balaa fajar gii xar kooku boobaa taxaw musdalifa kooku dootu nekkati luy ràññeeku ci moom maanaam ñi nga xamante ne daal dañoo am ngànt lañ waaye ki amul ngànt moom moom bokku ci maanaam ñooñu loolu moom moo tax ñoom ñu teqale loola am maa ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy fuqahaa u xanafi euh, euh, euh, rahmatullah alayhim ñoom dañu ne ah ñun day wax dëgg yàlla lii ñun sunna mu akkada la ci ñun maanaam sunnatu mu akkada la yëggul nag ci waaj war na waaye nag sunna mu akkada la maanaam ñu taxaw Musdalifa te d'ailleurs lii wane ne mën na nekk mooy ne am na ñoo xam ne dañ leen a woyofalal mbir mi maanaam comme ñi nga xam ne ñooñu lañ tudd léegi ñeneen ñi ci des moom mooy beneen ñi nga xam ne ñooy fuqahaa maaliki yi nag rahmatullahi ñoom dañ ne manduub maanaam lu ñu sopp la maanaam nga taxaw musdalifa kon boobaa yow soo ko taxawul itam maanaam dara du la du la war mooba waaye nag ñoom ci seen biir dañoo am ay teqantal maanaam ne taxaw musdalifa mooy li mooy li nga xam ne moom mooy waajib waaye maanaam fa fanaan fa almabitu maanaam moom mooy sunna manam kon mu am différence entre taxaw Musdalifa manam ñëw ba yexi ba taxaw lolu bokul ak fanan fa ñi nga xamantene ne tamit ñoom ñooy fuqahaa Shaafi'i Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom it am na foofu lu ñu leral moy fanan Musdalifa limi tekki moy bu weeru xaré moy bu weer manam moy bu buñ xaré guddi gi ñaari xat ñaari xat xat bu mudd bi manam lo fa ne rek doyna manam obligé wulo ci xat bu mudd bi nga nekk fa temps bi yëpp déedéet temps boo def Musdalifa ci xaaj bu mujj bi rek doy na mën ngaa daal dem waaye nag su fekkee ne da jugee foofu maanaam Musdalifa dem mi na fekk xaaju guddi gi maanaam guddi gi euh, xaajagul bu boobaa da ngay obligé dellu si waat doog a demaat soo ko deful rek maanaam da nga daal dugg ci caatu bu njëkk ba maanaam ñoom kon noonu la ñu am maa nag. te li gën a ko ràññeeku kon mooy lii nga xam mooy nga taxaw fa maanaam dem euh, nga dem ba añu ji kay demal demal nga jaar demal rek nga def li nga xamante ne moom lañ la moom mooy li jaadu te mooy li euh, li nga xamante ne nag kon fii danaan ñi nga xamante ne nag moom mooy ñi néew doole ñooñ dañoo am arte bu ñu woyofal ci ñoom ne ñoom duñ fa fanaan maa lii sunna li yoon lii jaadu mooy ñu ñu toog fa fanaan fa bu julli fajar doog a dem waaye nag dafa am ñoo xamante ne mooy gone yi màggat yi eh, ñi nga xam ne mooy jigéen ñi nga xam jigéen ñi nga amuñu kàttan ak ñi nga xam ne xëy na dañoo feebar wala ñooñu noonu ñooñu moom dañ leen a woowe faral ñu mën a teel a dem ñu mën a teel a dem ñu nan su ko defee ñoom duñ fanaan Musdalifa loolu lay wax nii mooy man xaddama ku jiital maanaam maanaam ñu teel a dem daafata ahlihi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi néew doole ci ñoñam yi waa këram yi bii lay lin ci guddi gi fa yaqifuuna ñoom dañuy taxaw rek bil musdalifa ci musdalifa maanaam ñoom du ñu fanaan musdalifa dañ fay taxaw rek ah wa yaduuna bu ko defee ñu njaari ñaan wa yuqaddimu ba pare mu jiitu nag iza xaaba al bu jant bi ah bu fenkee maanaam bu jant bi so uh, soowee bu bu weer soowee te weer wi soox ci guddi googu mooy guddi fukkeel gi maanaam mu ngi soox ci njàlbeenu ceer bu mujj bi maanaam weer wi daf yi nekk ba ceer bu mujj bi di waa di di tàmbali ci moment boobu ci la weer wi di dem maanaam dootoo gisati xam nga weer wi jour bu njëkk bi day génn rek daal di duggaat moo tax masalan ci yenn zone géographique muy muy muy Europe wala muy Sénégal wala yu mel noonu ku ne la gis naa weer wi minuit wala deux vingt deux heures waxul dëgg maanaam weer wi mun munoo koo gis premier jour bi mu mu taxaw fi nga naan vingt deux heures la gis weer wi loolu du dëgg moom leneen la gis bu fekkee am na lu mu gis. ndax première jour bi day génn rek boo gaawul boo gaawul doo doo gis deuxième jour bi mu xaw fee yàgg si tuut maanaam mbir bi noonu lay demee waaye waaye premier jour nga ni gis naa weeru saa weeru feeñ ne par exemple Sénégal vingt heures nga gis weer wi du munul nekk maanaam loolu dafa am ay heures yoo xam maanaam ne wala boog weeru benn jour premier jour kon voilà xam nañu yàlla sàmm maanaam dafa am ay mbir yoo xam ne jarul sax xam ko bu bëri. voilà ay phénomène géographique la yoo xam te ne borom subhaanahu wa taala teg voilà nga xam ne danga nga ciy mën a xamee léegi ku la wax dëgg wala ku la waxul dëgg ki taxaw ne la ne la ne la dem nañ ba uneur heure du matin ma gis jant bi génn duggaat ñoo yem boo ku la ko wax da xam ne kii waxul dëgg maanaam jarul naan ay woy imaam diwun seede na ko jaru ko maanaam du dëgg munul nekk voilà. dégg nga waaw imaam boobu koy seede moom ci jëmmi boppam lañu war a tuumaal yal nañu yàlla sàmm dégg kon mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab li xaddasanaa mu yaxya saalim mu ne muy ibnu abdullah mu ne wa kaana nekkoon na abdullah ibn omar radiallahu taala anhuma yuqaddimu daan jiital daafata ñi néew la ahli yi ci ñoñom fa yaqifuuna bu ko defee ñu taxaw rek ind al mashar al fa eh, al mashar al haram eh, muy bi nga xamante ne moom mooy bañu ormal ba bil musdalifa ca musdalifa bi lay luñ ci guddi gi maanaam lii tamit dafa tax ba borom moo xam yi rahmatullah alayhi di wuute lan ndax eh, musdalifa lépp lépp lépp moom moo bokk ci mashar al wala benn partie rek parce que dañ naan bu doon ne mu mash'aril xaraam ci musdalifa maanaam musdalifa yëpp moom mooy mas mash'aril xaraam maanaam kon danaan fil mash'aril xaraam mais du wax indal mash'aril xaraam comme tey bu mu ne boo eh, bu mu ne aqifu indal bayt maanaam damay taxaw ci wetu néeg bi loolu bu bokkul ak damay taxaw ci biir néeg bi du benn manam kon euh, loolu motax tax euh, borom xam rahmatullah wute ndax Muzdalifa yep ndax Muzdalifa lu xa lu yaatu la manam du benn place mu ndaw manam dafa yaatu voilà euh, dégg nga kon manam mais Muzdalifa délimitation yi li ci wàll yi ci wàll yep fofu moy minam manam bo joge Arafat da ngay yegg manam Arafat après Muzdalifa ngay bo boy guen Arafat rek yaangi dugg ci voilà. après euh, boo fa génnee xur maanaam ci xur yi nekk ci wet gi yépp foofu noonu moom mooy Mina léegi kon nag euh, fayas kuuna noonu bu ko defee ñoom ñu ah, maanaam kon bu boobaa euh, bu ñu wàccee Musdalifa faya bi ñu wàcc fa ci guddi gi bi lay luñ ci guddi gi ku kuruuna allah ñuy tudd buur yàlla ah, maa lépp loo xam ne badaa feeñ na la xum ñeel leen maanaam kon ñoom dañ fay wàcc ci guddi gi di tudd yàlla ci maam li nga xam ne moom moo feeñ ci ñoom maanaam moom la ñu mën su ma na nag yar joxoon na ñu daal di dellu xabla lu jiitu an yàq fa ci muy taxawal imaamu imaam bi wa xabla ak lu jiitu an yan daf a an an yadu faa ci muy dem moo tax fa minhum am na ci ñoom man ñoo xamante ne yàq damu danañu jiitu minan ca minan maam dana danañu dëgmal maam yàq damu danañu dëgmal minan ca minan li salaat bi fajar ngir julli fajar maanaam ngir ne danaan ah yéen de comme que ay mag ngeen. wala yéen gone ngeen wala yéen ay jigéen ngeen gaaw leen dem dem leen Mina dem leen Mina ci guddi gi bu ko defee ñoom duñ fa fanaan wa minhum mu am ci ñoom man koo xamante ne yàq damu dana dëgmal minan ba'da zalika ginnaaw loolu fa iza qadimu suñu ñëwee yegsee ramaw dañuy sànni al jamrata jamra maanaam mooy jamratul kubra maanaam suñu yegsee parce que bisu tabaski jamratul kubra dañuy sànni ñoom bu ñu yeggee Mina nag dañuy gaaw a sànni balaa rek rek loolu ba yow maanaam bu loolu moom bi suy am tamit dañuy tànn mag ñeeg jigéen ñeeg xale yi ñooñu ak wala ñi nga xam ne ñoo feebar wala yu mel noonu ñooñu ñu jiitu ci guddi ji ñoom ñu dem jiitu ji mi nag nga xamante ne bu julli fajar rek daal di sànni jamra balaa ñële di ju di julli fajar Musdalifa di ñëw di leen fekk si voilà maanaam loolu tamit day wane li nga xamante ne moom mooy eh, xikma bi ah maanaam yii yëpp bu ñu koy respecté dëgg dëgg dëgg maanaam problème mën naa موته وكان نكون نومر سيدنا عبد الله مر ام نومر رضي الله عنه يقول دار وحنا ارخص ويفلنا امنا في ين الروايه رخص ويفلنا في اولئك تي ني متد رسول الله دار يالا صلى الله عليه وسلم والا ينتبي صلى الله عليه وسلم مولن مولن مولن ويفل البرمي حديث بي امام البخاري رحمه الله تعالى في رجلك اندي imam muslim indi na ko xadis numéro 1295 imam ahmad indi na ko xadis numéro 4892 maanaam xadis la boo xamante ne imam buxaari ak imam muslim dañoo dëppoo solo ko ba pare waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoom ñoo ko fi indi rahimallahu aljamia mu ne qaala bil isnaad muttasil fa wal kitaab la xaddathana suleyman eh, ibnu harb min al asdi al waashiqi rahimallahu taala eh, gisul nañ moom mu ne qaala xaddasanaa Hammaad ibnu Zayd mu an Ayyuub mu as-Saxtiyaani an Ikrima mawlaa ibnu Abbaas an ibnu taalaa anhumaa annahu qaala nee na ba'asanii yabal na ma rasuulullaahi ndawal yàlla li sallallaahu alayhi wa sallam min jam'in ci mbooloo bi lay ci guddi. maanaam min jam'in bokk ah, lu jugee Muzdalifa maanaam jam'in jugee Muzdalifa bi lay ci guddi waaw <laughs> ah, Muzdalifa dañ koy wax jàmm comme ni ñu ko gisee woon. maanaam moom Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam daf kaa yabaloon maanaam te pourtant moom boobu mi ngi am 13 ans. manam mom treize ans la am jamono jojo way yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sallam euh, daf ni ko yow telal jugee Musdalifa yow ak mbok ñi nga xamantene yow moy jigen ni ngeen and man ak soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ñi nga ay mag lañ ñu dem dem euh, euh, taala anhu voilà xam ne kon ñi nga xam ne ñooy woy néew doole ñi rek ñoom la àndaloon euh, xadis bi ni imaam Buxaari rahimahullah taala dina ko indiwaat léegi xadis numéro 1678 Euh, indi na ko tamit xadis numéro 1856 imam muslim indi na ko xadis numéro 1293 ñetti yoon ak 1294 benn yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1939 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 892 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 3032 3033 3048 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 3026 imam Ahmad ibn Hanbal euh, indi na ko lu bëri kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii قال بالاسناد المتصل فقال الكتاب الذي حدثنا علي ابن المديني من قال حدثنا سفيان ابن حيينة أنه قال من أخبرني آه، عبيد الله ابن آه، أبي يزيد آه، مو أبو محمد المكي رحمه الله تعالى مم ومكة لم تموالي لبوك رحمه الله تعالى moom euh, ci ñeenteelu génération bi la bokk moom mi ngi gane àdduna quarantième année génn àdduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu euh, na ko ne siqa la rahimahullahu taala mu ne noon sami'at ne dégg na ibn Abbas sayyidina man de mim man damaa yi nga xam ne xaddama daf leen a jiitaloon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy la maam ku ñu jiital moo la maanaam jiital maanaam mooy xaddama yu xaddimu manam dana jital wala taqdiman moy ak jital motax muqaddam ñu non ko muqaddam wala taqdim manam ak jital lool rek la moy dañ la jital pour nga wala manam pour nga mëna def nangam ak nangam jeex na dégg nga manam kon def ko jiital annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam laylatul musdalifa guddig musdalifa fii daafati ahlihi ci ñi nga xamne ñoy ñi neew doole fi daafati ci ñi neew doole ahlihi ci wa këram manam moy soxna yeeg magge magge yeeg ñoo ñooñu lañ la wax nañ ko nañu maam ñu ñu jiitu maam naka noonu tamit euh, ñi nga xamante ne tamit dañuy duñu maanaam fanaan Musdalifa googu noonu mën naa bañ a nekk lu ràññeeku ci ñoom mooy masalan ñi nga xam ne dañoo Makka par exemple dañoo war a dem toppatoo ji ñi maanaam xujjaaj yi war a préparer maanaam li nga xamante ne moom mooy yi ñu yi ñu leen war a defal ak yooyu ñooñu masalan maanaam ñooñu tamit mën nañoo teel a dem voilà euh, mooy borom ngànt yi rek. voilà hadith bi gisoon nagn ko legui ma bukhari di woon nag xadis numéro 1677 dina ko indi wat 1856 te nagn wax ne ko do sitta ñom ñep solo nagn ko rahimallahu jamii mu ne qaala bil al mutasil fi al kitab li xaddasana musaddad mun musaddad mun an yahya te mom moy ibnu said ibn farrux al qattan an ibnu jurayj moy abdul malik ibn abdul aziz ibnu jurayj rahimahullahu taala mun qala qaala عبد الله من مولى اسماء مولارا لكون مولى عبد الله بن كيسان القرشي التيمي رحمه الله تعالى مولى داكن تام نيك ابو عمر بوك نيتل جينيراسيون مي نيك بوك تي مدني يوني رحمه الله بوك تي ثقات يي ا آه، تي ني غن ماغ تي تابعين كوم نيغا خامن ا آه، رحمه الله تعالى مام تي تابعي مام تي ني غنون ماغ لا بوك رحمه الله تعالى تي بوك تي نيتل جينيراسيون موم مو an asmaa muy bint abubakar as-siddiq radiallahu taala anhuma mu ne annaha naka moom kat nazalat wàcc na laylata jam'in maanaam guddi boole ga indal musdalifa ca musdalifa fa qaamat mu taxaw tusalli di julli maanaam muy taxaw muy julli fa sallat mu julli saatan waxtu suma topp xaalat mu ne yaabu na yow sama doom hal gaaba ndax fenk na al xabaru weer wi ndax weer wi fenk na maanaam kon dafa dem Musdalifa bi mu demee mu julli euh, ginnaaw ga tamit muy muy taxaw di julli mu julli waxtu maanaam mooy di jaamu yàlla waaw place boobu place jaamu yàlla la xultu nee na ma ne ko ne mu laajte nag ne sama doom euh, ndax euh, maanaam jant bi fenk na xultu man ma ne ko maanaam da gis ne maanaam Abdullahi bii du doomam waaye maanaam jaam bu mu goreel la hmm? maanaam jàmbum goreel moom mu ne eh, mu ne ko mu ne ko kon sama doom ndax ndax julli gi ana eh, ndax jant bi ndax weer wi fenk na xultu ma ne ko laa déedéet fa sallat moom mu daal di julliwaat saatan waxtu suma topp xaalat mu ne hal gaaba ndax fenk na xabar weer wi xultu ma ne ko naam waaw xaalat mu ne fartaxilu laxas leen fartaxal naa ñu daal di laxas wa naa ñu wéy xattaa mbéte ramat mu daal di sànni al jamrata jamra bi su ma topp rajaat mu daal di dellu si fasalan mu daal di julli as subax subax suba fii manzilihi ci wàccu waayam maanaam ca Minan maanaam kon moom maanaam dafa sànni jamra laataa lan fajar gi maanaam mooy ne loolu day wane ne ñi ñu ko woowee falal mën nañ koo def maanaam bu ñu teelee yegg rek mën nañoo daal di sànni jamra balaa nit ñiy julli ñoom fekk ñoom pare nan ba dem nañu Euh, dégg nga bu ko defee du ñu ay raj-raj loo yu métti yeeg yëpp du ci am naka noonu coono du leen ci fekk ah, mu ne suma topp nag rajaat mu daal di dellu su fa sallat mu daal di julli suba suba gi suñu mantili aa ci wàccuwaayam ci wà ci wà ci mooy mooy fa mu wàcce mooy mooy dalam daal mooy daluwaayam fa qultul ma wax ko laxaa ne ko yaa xantaaxu e yow ndaw sii hmm? maanaam kàddu maanaam comme niñ ko gisal xanan xanun xana ah hmm? ya hanahu hanatahu ah gisone nango ko munako yo ndaw si ma ma urana man di gisuma ni illa lulul mana? ne qad deug deug khalasna manam euh ci kukk lañ ne manam ci mana lañ ne manam xal ah moy khalas manam moy ci gudik la ah, al khalas mom moy euh goo go xamantene dafa lendum manam ci jeexitalu gi manam moy jeexitalu gi fajar gi di di dugg si voilà di mooy comme li soxna sox wax na rek radiyallahu anha nee na kun na nisaun kun na nisaun minal wa ay jigéeni jullit daan nañu julleendoog yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fajar dellu seen kër yi te kenn du leen mën a xàmmee ndax taruk lëndëm maanaam mooy ne daka daan dëkk ah, maanaam buñ julli gi noonu bu daan am loolu moom moo tax ngir taruk lëndëm gi duñ leen xàmmee maanaam muy faral mu ne ko nag kon ñun ci lëndëm lañ nekk xaaral mu ne ko yaa bu ne sama doom inna rasulallah naka dawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam azina dafa digal li zuwaani li zuwaani jigéen ñi tukki maanaam ak maanaam euh, mbooloo la mooy yi na plurielu yi zaina mooy jigéen mais guy tukki ñaare ci lañ koy wax na ah, kon euh, mu ne ko nag kon ñii jigéen ñi ñoom yenn yenn bi sax sax da leen a woy falal loolu maanaam kon bu boobaa da ngay gis ne loolu sax day tax ba du ñu nekk di raj-raj loo ak góor ñi manam di di di retraite lo ñoom ni ñuy sànnee jam ra fuñ koy sànnee fañ lañ koy sànne yoy du ñu retraite lo ñoom ñom dañuy teel dem def li ñuy def dem teuri wala dem de nga né noppalu ji eh, tabarakallahu dégg dem mo né hadith hadith bi nak mo bukhari rahimahullah taala fi rek lako indi imaam Muslim nako hadith xadis numéro 1291 imaam Abu dauda na hadith numéro 943 imaam An-Nasaa'i na numéro 3050 imam Malik dina ko xadis numéro 1160 ak imam Ahmad dina ko xadis numéro 26941 ak 26966 kon ñu gis ne xadis bi eh, waa asxaabu hadis bi sitta maanaam ñeent ñoo ko jënd muy imam Buxaari Abu Dawud ak imam Nasaayi te it beneen bi ci des mooy képp ku ko indi ci ñoom benn yoon rek indi amma imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil Muhammad ibn Kasiir ibn al-Abdi Euh, euh, rahimahullahu taala muy Abu Abdullah Abd al-Basri génn àdduna 133e année génn àdduna 223e année bokk fukkeel génération bi maanaam kon euh, moom muy kon Muhammad ibnu Kasir di frère Souleymane ibnu Kasir moom nag moo ko mage woon maanaam Souleymane moo ans la ko mage maanaam frère moo ko mage 50 ans. <laughs> raxmatullaahi taala voilà maanaam kon moom mooy xam ne seen frère dañ leen dañuy nekk ay paa ñoom ñuy doog a juddu voilà. Hmm? non duñ bokk yaay non non non ñaari duñ bokk yaay waaw non non non waaw maanaam dañuy bokk bàyyi rek. Euh, قال رحمه الله رحمه الله تعالى من قال أخبرنا آه، سفيان تمام ابن سعيد مسروق الثوري رحمه الله تعالى سفيان بن سعيد الثوري من قال حدثنا عبد الرحمن من هو ابن القاسم ابن القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من عن القاسم القاسم بن محمد بوك فقهاء السبعه ah juróom-ñaar ba xam fekk yu mag yooyu rahmatullah alayhim jamono yent jamonoy saxaaba yi bokk euh, taabi yi bokk rahmatullah alayhim mooy koy bokk ci fukk ci ñetteelu génération bi mais moom cent sixième année bi ñeneen ñi doon génn àdduna maanaam moom ñoom bokkuñu ñoom génnuñu àdduna bi seen moroom yi di génn àdduna maanaam boro xoxom madina yu mag ñoom yëpp quatre-vingt-treize ba quatre-vingt-quatorzième année ci lañ génn àdduna ñoom nag maanaam après dundaat nañu fukki at seen ginnaaw maanaam Aïcha mu mu ne na radiyallahu taala anha anha qaalat mu ne istadanat sàkku na ndigal sawdatu maanaam soxna sawdat bintu Zama radiyallahu anha nga xam ne mooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñaareelu soxnaam wala boog ñetteelam maanaam euh, soxna Xadija radiyallahu anha moom la moom mooy soxnaam su njëkk si ñaareel bi ci des mooy soxna Aïcha radiyallahu anha mais soxna Aïcha ak soxna Sawda kan lañ ci njëkk a loolu daa desee leer maanaam euh, waaye li gën a wér nag mooy soxna Aïcha radiyallahu anha la njëkk denc waaye soxna Sawda moom da kaa denc rek mu sëy si alors que soxna Aïcha radiyallahu anha maanaam ñetti at ginnaaw nga la sëy ji maanaam Madina loolu moom mu bokk na ci li indi confusion bi waaye wax tamit jegewantoo gi ñaari takk yi jegewantoo mën nañ ni sax ñoom la labatandoo ñoom ñaar maanaam soxna sa Aïcha ak soxna Sawda voilà moo tax takkandoo jabar mën naa ne ah maanaam takkandoo bu benn euh, euh, maanaam ci benn bés nga takkandoo ñaar ñaar mën naa ne wala ñett sax jàpp ñeent bu fekkente ne jotoo woon am dara moom nga am nga nga jëlandoo ñeent loolu mën naa ne waaw dégg waaye boo waaye na nga yam ci loolu dégg <laughs> mu ne euh, dafa nekkoon mu ne wakaana dafa nekkoon nag moom lan war a mu jox ko ndigal sàkku ndigal maanaam wala boog yent bi sarasam jox ko ndigal ne nañ ko gën a gaaw a dem mu ne kaanat da maanaam euh, euh, ko daf ko laaj ndigal la tal euh, lay lay la ta jam en guddik ah musdalifa gi wa nekkoon na saqilatan di ko diis sabtatan fa azina laxaa yent bi sarasam ndigal ko ko maanaam yent bi sarasam ne la dem mu jox ko ndigal googu radiyallahu taala anha xadis bi imaam Buxaari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 1681 ci baabu man qaddama daafata ali bi laylin maanaam mooy bunt bi nga xam te ne moom lañu maanaam xaddi imaam Muslim na ko xadis numéro 1290 ñetti yoon maanaam Nasaay na ko xadis numéro 3035 3049 ak 3066 imaam Ibn Maaja na ko xadis numéro 3027 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 24015 24635 24673 25017 25380 25788 maanaam imam Buxaari kon xadis bi daf ko indi fii mais dana ko indiwaat léegi nii maanaam mooy xadis bi ci tegu insha allahu taala imam Buxaari maanaam xadis bi kon dañ gis ne asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko tamit moom des imam Abu Daawud ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi على الجميع من قال بالإسناد المتصل في الكتاب اللي حدثنا أبو نعيم تمام الفضل بن دكين رحمه الله تعالى من قال حدثنا أفلح بن حميد آه، مهم نافع الأنصار النجاري رحمه الله تعالى ما أبو عبد الرحمن mooy آه، تلم آه، rahimahullahu taala moom ci juróom-ñaareel génération bi la bokk mu dekk waa madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wasalaam gane àdduna 80e génn àdduna 156e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam moom boobu la bokk donte moom moo ko makkee ay ah, ba pare jëkk ko ah, mu ne moom mu ne an al-Qaasim ibn Muhammad moom bu solo ci fuqahaa maanaam moom dañuy gis ne kon moom dafa solo ci sëriñu sëriñ Imam Malik maam ndax dafa ndax fukki at rek la ko mage waaye fukki at yooyu mu ko magee day tax mu gis ñu Imam Malik mënta gis waaw ndax comme al moom cent sixième année la génn àdduna Imam Malik euh, cent sixième année ay onze am maanaam dangay gis différence bi euh, maanaam jotutu solo ci ñu mel ni ñoom ñu mel nii dégg nga kon moom alqaasim maanaam maanaam moom alqaasim muhammad hmm? alors que ñii imam ab Maalik buy soloo ci ñoom faw da koy jëlee ci ku mel ne imam az-Zuhri hmm? rahimahullah mun an Aïcha ummul muminina radiyallahu taala anha annaha qaalat mun nazal naa wàcc nañ al muzdalifa muzdalifa fastadanat mu sàkku ndigal annabi yent bi sallallahu alayhi wa sallam sawdat sawdat radiyallahu anha daal di sàkku ndigal yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xatmatil naasi xatmatil mooy raj-raj loog an naasi nit ñi laataa nit ñi di raj-raj loog di moom nag moom mu teel a dem wakaanat nekkoon na nag imraatan jigéen yoo xam ne bati atan ku yéex la fa azina laha mu daal koy fa azina mu jox ko ndigal mu jox ndigal laha ñeel ko moom yonent bi sallallahu jox ko ndigal fa dafaat mu daal di jañu dem qabla lu jiitu xatmatil naasi jañu maanaam raj-raj loog nit ñi wa aqam naa ñu taxaw xattaa ñun ñun ñun ñu ne fañ ne xattaa mete asbax naa ñu xëy ndax mu ñun su ma topp nag dafa naa ñu daal di dem ñun tamit dañ dem di dafa bi dafa yi ci dem yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñu daal di ànd dem mu ne fala an mu ne giñ naa ne day ma nekk mooy fala giñ naa ne day an ak ak akuna ma nekkoon istazantu fala maanaam fala maanaam fala ak akuna giñ naa ne day ma nekkoon istazantu di sàkku ndigal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ne istazanat noonu la sàkkoo ndigal sawdatu soxna sawda radiyallahu anha ahabbu maanaam moo doon gën a sopp ilayya ci man min mafruxin mooy ci loo xam te ne danaa danaa bégee bi ci moom maanaam loolu doon naa ci sopp doon na ma sopp lool lool lool maanaam moo ma gën a lépp daal ci gàttal maanaam loolu moo ma doon gënal lépp mooy ahabu ilayya min mafruham bihi mafruham bihi maanaam mooy loo xam te ne dama ci maanaam dama ci bég lool lool ba bëcc lépp maanaam loolu moom mooy mooy mafruham bihi maanaam loolu lay wax kon moo ma ko gënal moo ma gënal lépp daal maam ci gàttal wax ji loolu lay tekk ne man daal li soxna Sawla def radiyallahu anha man daal ak a neexoon ma defoon loolu voilà voilà radiyallahu anha moo tax moom soxna Sawla daa nekkoon tamit royukaayam bu mag radiyallahu anha waaw ah, da daan wax naan soxna Sawda man damaa gis ci moom maanaam mu mel noo xamante ne su ma sañ moom daal laa daan gis ne eh, amul kenn koo xamante ne gis naa ci moom njekk ku rafet njekk que ci ci ci moom que que maanaam ku jëm ci man que moom ni mu ko ni mu ko mere woon maanaam eh, eh, te te soxna Sawda moo ko mayoon tamit njëlam maanaam moo ko mayoon njëlam radiyallahu anha ne waa léegi man sama bàyyi ma ci kër gi waaye sama njël jox naa ko soxna Aysa radiyallahu anha kon moom soxna Aysa day aaye ñaari yoon maanaam bu ñeneen ñi day aaye moom day aaye ñaari yoon radiyallahu anha ma xadis bi imaam Buxaari gis nañ ko léegi ne indi woon na ko xadis moom mille six cent quatre-vingts waa saabu solo nañ ko